daanaka semaine moo toll ci bis bi nga xamante ci lañ war a tànn rek ñi war a teewal askan wi ci ëttu penc ndew réew mi loole waral nag ñi nga xamante ni ñooy nekk ci wàllu politique woowee sax nekk ci kaw terrain bi ngir dagaan rek kartu électeurs yi ba tax nag ki nga xamante ni mooy Abdou Karim Sall moom mën nañoo wax ne mën na dalal xelam ci li ñu jot a déglu fële ci garage ba ñooñ nag ñoom ne nañ daal danañ ko jox seen i carte danañ ko woteel ci boobu la bis fii ci garage bi duma fi gan duma gan fii ci garage clando yi mane ne avant 2012 am naa fi set oto yoo xam ne fii lañ doon dawee te ay doomi mbaaw ñoo ko yoroon kenn si ñoom a ngi noonu ma tàkkaarloog moom muy daan Mbàkke ca tamit noonu la fa tëddee

boo bëggee Macky Sall li ngay def ginnaaw bi nga demee bindu ji soo bindujee ba pare demal jël sa carte d'identité téye ko ci roog seen nga denc ko ba heure bu wati jotee nga dem jënd ko sànni ko Abdou Karim loolee bëgg Abdou Karim Sall. pas-pas bi ñu am pour jàppale le président de la République ñun en retour dañu war a am pas-pas bu day noonu pour taxaw ci soxla bi mu xam ne won nañu ko na ngeen jàpp ni seen soxla soxlay jàkka ji la seen soxla. mooy sokkay jeunesse bi seeni soxla mooy soxlay femmes yi loolu yëpp ajaa bëgg fallu wax na ma ko benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeent. mu mel ni politique ak diine desu leen tàqale loolu lay waral rek imaam yi ñoom it sànni seen kàddu gannaaw bu ñu sukkandikoo rek ci wareef yi nga xamante ne war na sax képp kuy jullit kuy yëngu ci wàllu politique waaye tamit rafetlu liggéey bi nga xamante ni Abdou Karim Sall amal na ko foofe ci jumaa yi waaye tamit di sàkk ci kenn ku ci nekk mu joxe rek kartam ci boobu si boobu ki nga xamante ni mooy njiitum réew mi. góor bi nga xam ni góoru politique la góor bi nga xam ni góoru diine la e muy Abdoul Karim Sall turam bokku ci turi yàlla yi gën a màgg ndax Abdou la yàlla gën a fonk wante sant wa baatin la ndax boo seetee mooy tur Muhammad sallallahu alayhi wa ñi xam-xam nañu ni sàll 90 la. nga teg ci ñaari araf yi muy 92 kon Abdou Karim ñi ngi lay yaatal di la tatagal di la xamal ni daañu la jàppale yal na la yàlla jàppale ndax bu nu la jàppalee suñu bopp léegi la ñu mbokk yi ci diine mbokki réew mi di Sénégal war na képp kenn e fa tabaarakallaa mu génn bis bi nga xam ni mooy bisu tànn benn kilifa te kilifa bi mooy Abdou Karim Sall. foofee nag mu mel ne moo doon cappaandawul doxu nemmeeku bi nga xam ne rek Abdou Karim Sall moom daal di rek dénk nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a wote ji. fanweeri fan ci weeru juillet boobu kenn ku si nekk rek fagaru waaye tamit jël sa ngànnaay muy sa carte fas yéene ko sànnil ki nga xamante mooy benn bokk yaakaar waaye ñoom ñëpp ñu ànd ci nag si bés boobee mën a fésal nag ak mbégte boo xamante nii ca ak ngañaay lay soqe ko